ñi néew doole ci néegu sëy ak ñi nga xamee ne dañuy gaaw a daanu yéen lay waxal garabu ngóora nay dëgër ñëw na ngir saafara seeni jafe-jafe ñu liggéeye ko ci biir réew mi amul benn effet secondaire ak efficace ci gaaw a daanu roof la kàttan ba madame am satisfaction yegsi naa yegsi naa maa ngi dee xaas couture yegsi naa waaw coupé non ni ma tegtalee dafa dafa dafa yomb trop. dafa yomb moom xoolal damay dindi masque. xoolal bu ma bu ma takk masque ci yéen. Ah, mais kon nañuy respecté. Eh, eh, eh, waaw ci lu ngeen ne. nam la sant yàlla. waa kër ga. mais seen jëw dafa rafet. dama kontaan. yàlla yàlla xool ca tàllal loxo ma ñaanal leen. yàlla yàlla gis xam nga man nag ndax nan laa. loolu ñaar ñaari ngi nii. du ma lekk laax bu sedd ak meew nga ne bu tëdd ci pajaas bu ko rus daanaan la du kii du ma sol contre jasner du ma sol contre bazin du ma sol contre danila pire te yéen pire ngeen di def laaw la loolu dundoo pire wute naa ko fi jógee sànq de laaw la dina jëmale ma ci pire kaca beneen la waaw ci pire ci pire waaw nice waaju baax waaw yàlla yàlla fay la amiin yàlla léegi nag tabaski dafa ñëw. waaw hmm. ah, xam ngeen ni daan naa njawloo mbaadaan couture. waaw ah, eh yow moom macha xam ngeen daan naa njawloo turundup couture. yow Lamine da ngay njawloo xam ngeen ni yéen daan naa njawloo ndaanaan couture xam ngeen rek bu baax te ndaanaan mooy ñawal jiitu réew mi. non non pièce bi na ñawal na la ko. ko. accu naa ko. nga ne ba ma ko ndax li ma gis sama waa ji sol xaas. waaw. xaas la mu sol xaas la mu sol. ñooy toj dëkk bi wallaay. te naaj loo ci xam ne kii waaw am kii. du hmm. taxaw di wax ci boppam te ñun ñu taxaw. moom dañ ko xam. bu wér am na qualité ko xam. am na qualité di ndaanaan am na fulla. fayda xam boppam bu wér. reporter Sénégal yëpp. mooy Samba ci loolu ci le meilleur le VIP est là. kenn du eh, ma wax li ngay sol. xam naa xam naa la bul ma wax li ngay sol. mu mu eh non. ko rek yàlla may ko mu tànnal la. may ma eh, ma dégg leen benn affaire. waaw. Ah. ku ñu jàngal ñaw. fekkere la noo tëdd. Ah, waaw Lamine yow tamit. ku la jàngal reporter. Eh. xaaral moom may ngeen ci julli ngeen jënd boisson. booy ñëri. ci ngeen julli ngeen jënd boisson. très bien. kenn du Lamine. nga xaalis su TFM day sañ parti. sama xol mais sama ay champion lañu. ay champion sama xol moo set. waaye nag balaa dañ doon jaay ak sa nag Lamine. buñ la ñawalee adduna Sénégal war nga gëpp. xam ne la naan nga naanal ñamal na la. xam nga lu ma la bëgg a ñamal waaw. et bu ko wax bu ko baax. bu ko wax bul wax bul wax sekkere doo dégg sotti xam lay tudd ñëw ñu sotti xam lay tudd. Ramit yaa ngi dugg Sall. waaw waaw ma si. Lamine jëlal jëlal. mais ma mais am na am na. am na lu ma def am na lu ma def am na ñu ma yow balaa ngay natt. Ah. am na looy def. weer nañ la. non non euh, benn rakki xaas. waaw waaw waaw. moo ma ne bu la sawaay nattal. waaw te deful femba. waaw femba bu gën a. waaw waaw loolu moo tax. mu soog ko lan. waaw tuuti rek moom fu mu toll nii kii nañ. waaw ah nooy def. yaa moom sa potu mbaa rek. Ah, waaw moom daal ah. moom moom potu mbaa moom moo nekk raxas tuur bu ko neexee raxas tuur bu la neexee raxas naan. Ah, waaw ndaa yaa moom sa wanag bu la neexee raxas tuur bu la neexee raxas naan bu la neexee raxas ay bu la neexee raxas ay bu la neexee raxas. loolu mooy yow ñu ndax ko non fii dafa neex fii fii dafa neex. Lamine Samba Lamine Samba poitrine. dënn bi jëlee na 1 mètre 50. dënn awoon law. 4 mètre 50 dafa doon tooñ. waaw waaw. 3 mètre 50 wala 1 mètre 50. non man man man 3 mètres 50 lañ ma doon defal. kooku ñu mënuñu ñëw. 3 mètres daa doon dox. 3 mètres ci dënnu ñu. 1 mètre 50. waaw 1 mètre 50. ci dënnu waaw ci dënnu la mètre Samba bi ndel loolu. 1 mètre 50. presque man Balla Gaye moom moom Balla Gaye jël mesure Balla Gaye bi la rek. Hmm. mooy mesure Balla Gaye bi la. Balla Gaye waaw Balla Gaye ñaata woon 60 ko loxo. biir xam nga ko tolloo la avant Balla Gaye moo doon 60. rek rek waaw xam nga. biir ku ma ko tegal. waaw Macky Sall. yaa ngi xam naa biir xam naa biir moom Bombardier la moom. xam naa biir ba luppi Bombardier. waaw Bombardier waaw. góor la macha allah góor la longoor bi. eh longoor bi Bombardier bi. longoor bi deux mètres vingt ñawal xaas. deux mètres vingt ñaata. trois pièces. non ñaata. longoor xaas. ah ma ko am. deux mètres xaas deux mètres dix. xaas dem na deux mètres vingt cinq. xam lu ma doon defal. xaar dëgg ah. un mètre dix. waaw kii xam nga la def na la def. un mètre dix. bi ñu ko comme bu xaas ah, waaw. mesure moo moo xaar soxla xaar deux mètres vingt cinq longueur am nii. waaw moo xaar xaar vendredi day màgg. xanaa bi ba ci kanam. wala da ah, bi waaw dina ah. <laughs> nga mën a imaginer ma xool ndax ndaanaan nga. sa kuur waaw. croisé waaw en coup baat 35 ku Lamine Samba maanaam putub Lamine. waaw waaw 35 waaw waaw. putub Lamine Samba 35. mais fii jant jël pour mooy put. lii bu tey seen bi rek. waaw jël bële gi. waaw bële gi waaw. waaw ku Lamine Sénégal ku fi daax lekk ganaar. Sénégal ku fi daax lekk ganaar. Lamine Samba 45 la amul bëli. kan 45 Lamine Samba. bëli 45 la waaw 45 la. jël ko bëli 45. bëli 45 waaw. amoon man mu tuddoon noonu. même même ni muy nooyee sax bindal 30 degré. mais nooy nooy a waaw 30 degré la jël mesure ba ci nooy. nooy la muy jël sa nooy sa jël 30 degré may la ma paa ba mayoon. mooy balaa may dem. mooy kontaan naa. fii la sama xol sedd na te jotaguma ñaw. jërëjëf yàlla bu leen cap toog. amiin bayre bi Ablaye Diop xaas am yàlla ngeen am bu ko raw. amiin yàlla bu xaas couture. waaw vraiment. di natt bay natt nooy waaw jaaraama yéen. jërëjëf la ma paa waxoon foofu laa leen di tàggoo dem. kañ laa koy jël si. yaari hmm. eh, fan ñett ñaari fan ñett rek. yaari fan ñett dañu la bëgg baax. la ma la ma paa ba waxoon. faako baas su caam sengor coro ma jigéen ba ci arwaar akati waaw la ma du ma tëgg du ma du ma way mais balaa may dem dama lay may benn mooy la la paa dafa sonal waa këram ko dem witti kati jantaal jox paa bi ataaya mu naan paa bi génn daw daw ñëwaat waaw sumbi garambu bi ci biti waaw ñëw bu ci biir kër gi waaw na jabar ju tudd say ak ñanga ñanga say mooy aaw bi ñanga mooy ñaareel bi dëgg la mu ñëw fekk say a ñanga toog ci mm. digg kër gi te boobu man na mm, waaye yow waa baa nga ca tabala may sa tëdd dëgg nii nga ne sori na sama gu foor la wax xàmmeewul jàng ak te xam imagine gaa yoo xam ne ay 40 ans 50 ans mosuñoo ree ci biir kër gi mosuñoo ree fu ñaar jubli julli. ku fi ku fi lii ku fi sol tubay. comme ça bàyyi rek. Hmm, kër gaa fees. voilà kër gaa nga fees tel. paa am na ñaata 44 doom mu wàññi voilà. waaw def ko ay weer. Hmm. Ah, gàtt jamono ji de. Hmm, bëri na <laughs> métti na de. Ah, na de. mooy bu la neexee yow. xanaa paa bi xanaa paa moom allemand lay dund. waaw nañ rek. 44 voilà. yow daal ne lay nangul rek. <laughs> Ah, ok 44 doom ñu ne neen la. waaw paa bi mu toogee bi mu ñëwee fekk kër gi yëpp fees. mu ne tëll booy di daw. xam nga dañ ko ragal. waaw waaw toog leen an seen yaay. ana say mu toogal ana ñaga mu toogal paa bi jékki-jékki rek ne làng leen gars yi la. eh bi moo doon dëggal boppam. moo doon feccal boppam moo doon waye katee bon. say dëggal ñanga taay xale yi jooy ma yanga yi jooy ma yanga suur. baax gi nii sax wallaahi wallaahi noonu la ko xool la da ngay defal ko tàng xol mais nii la mel géwél dëgg gi nii c'est la référence de tous les griots du Sénégal waaw mais man 44 doo bi ma c'est que Lamine foofu la defee erreur waaw war tax doo bi 44 jamono ñu toll bëgg naa ko wax da ngay toog waaye waaw non yooyu doo ko mën a wax nag ba mu def rek dama day comprendre bi da ko moo tax wax na ba si yàgg mooy ndax ma tex bu texul nooy def bu texul dañ ko ñëwal nag hmm? dañ ko ñëwal eh, day wax day wax ku ko defal lu baax moo ko defal leen euh, euh, émission bi aye eh, bu ne bëgg na faa dugg nag di ko ñawal di ko ñawal kon nag bu ñu yàlla dimbalee yàlla xir mu ñëw ci ñun bëgguñ ñawal ko nag dé ah, nag war a ñawal la mi sàmba ma jërë gis hmm. ndax turóom yi nag mi ngi bëgg lëmbi suñu at li bi teg suguñ ko Ablaye Diop xaas war nañ ko def ko tey xam naa ne doy nañ waar de ku ñëw rek tudd turam jàmbur waaw ñaan ñoo ko def ñoo jël tur tuddee ko ko kay waaw moom dañ koy dégg rek moom itam xam naa ne dañ ko gis de ah war nañoo dem ci moom nag hmm. sëñ bi war nañoo dem ci moom sëñ bi war nañoo dem ci moom nag ko tuddee nañ la tuddee nañ atelier bu baax ku baax waaw loolu baax na baax na dëgg naa ku baax te yow booy wax ak mbaaxam léegi nga baax la ilaha illallah booy wax ak mbaaxam léegi nga baax doomu nday Youssou Ndour la waaye li ma samba yow moom muy muy nga ko jëlee yow mooy loo ko jëlee nooy nooy dañ ko sol yël maye nooy gi ma nooy nga jël kay man ba ma jàng dañ ko sol yël loolu day compté dafay bokk man maa jàngee métier jàngee fu métier métier man kam laa jàng samba moom day tawee ko dama ko ñëw quoi waaw mais dama samba dollar la waaw dama ko ñëw Sénégal fii am na ñoo xam ne dollar lañ dollar bu la neexee ngande bu la neexee tuuti mi ngi noonu seen po yaa ngi noonu yomb na lool bu ngeen wootee ci numéro boobu noonu incha allah di ngeen jot ñi nga xam ne ñooy leen koy jaay ñu jaay leen ko ci prix yu yomba yomba yomba yomb mi ngi noonu day po la yoo xamante ni fii lañ ko defee ci biir dëkk bi day yokk sa awra ba mu dëgër da koy yokk da koy dëgëral